thank you l'obélisque gis nga li nga xamante ne mooy sitting bi fi nar am ci ñi nga xamante ne mooy euh, artistes yi nee naa ko nag artistes yi la ñu làmboo dañoo bari kat yaa ngi fi woykat yaa ngi fi tasukat yaa ngi fi euh, rappeur yaa ngi fi ñëpp ngi fi tey ñu fas yéene def benn sitting boo xamante ne am solo la uniquement pour fas yéene waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo di askan wi waaye aussi ndax li nga xamante ne yéen ñu woo moo tax ñu ñëw ba na tey li nga xamante ne tey nar naa xew tey ñun la ak yéen tey yéen a ñu woo ñu fas yéene ñëw waxtaan ak lu amam solo. sant bi bëgguñu journaliste yi jege leen nañu nee dañuy respecté soit disant mooy distanciation bi gis nga artistes yi ñëpp ngi toog ci suuf nee naa ko tey kay way salsa kay way mbalax kay rap kay fecc kay anime ñëpp ngi fi tey fi nga xamante ni mooy ci place de la nation fas fas yéene amale li nga xamante ni mooy sitting bi gis nga leen ñoom ñëpp daal ñuy toog ci suuf mu doon loo xamante ne image bu am solo la nii li ngeen di gis nii gis ngeen Alioune Mbaye noonu ca kanam. gis nañ ko noonu nu mu toogee mu doon loo xamante ne am na solo loolu waaye itam dinañ waxtaan ak ñoom ku nekk rek ñu fas ne waxtaan ak ñoom waxtaan bu am solo ci li nga xamante ne tey xew ne fi mi ngi noonu gise pene ngi noonu taxaw ah fecckat yi kenn desul ginnaaw nee naa ko ci yaatarkat yi acteur ak actrice ñëpp ngi fi DJ Awa Ji mi ngi noonu taxaw ci kanam tuuti rek incha allah nañ leen tàllal suñu micro bu ko defee ñu waxtaan ak ñoom gis nga dañuy respecté li nga xamante ne mooy distanciation bi koo ci gis rek daal dina takk li nga xamante ni mooy masque bi lépp rek ci mesure barrière yi mu loo xam ne ay kàddu yu amam solo la waaye Pate topp ma Djidji Awa Di laa seen muy wax mën naa jàll wala après nga dem solution sérieuse et mature voilà et voilà pourquoi on est là. Ah, non non non on va aller à, on va négocier avec eux et mais on va leur montrer que euh, on va pas leur l'argument de la force. mais la force de nos arguments. Et maintenant, qu que, quel est le message pour le gouvernement et pour les Sénégalais Le message, c'est que les artistes aussi sont des travailleurs. Un artiste, quand il est sur scène, il fait son travail. Et chaque citoyen a le, chaque citoyen a le droit de travailler. Et donc voilà, nous voulons juste exercer notre devoir, notre droit et pouvoir faire nos devoirs vis-à-vis -vis de nos familles. Il y a trop de drames en ce moment. Ça fait dix mois quand même. alors DJ Awadi Soupandanan en wolof s'il vous plaît. vous êtes en mhm. direct sur Dakar TV il y a d'autres sites aussi donc euh, ñuy rafetlu sa teewaay déjà en tant que acteur euh, culturel mais tey est-ce que daje bi xaaroo leen woon mbooloo mu ëpp lii nga fi fekk. non tey ci suba gars yi dañu tiital sama gars yi génne ay chars de combat bon yenn ñi ils se dañuy def ay repli stratégique donc ñëwuñu mais dara nekku ci déjà lii rafet na lii rek doy na. symboliquement c'est très très fort. tey xam nañ la en tant que musicien les gens sont là les rappeurs sont là donc voilà. xam nañ la en tant que musicien mais au-delà de ça gis nañ da nga daan organiser ay spectacles yu mag donc les dix mois xam naa bu ñu la ko laajee bu ko waxee boo waxu c'était très difficile pour vous. ah surtout ñi nekk sa ginnaaw donc tey euh, boo leen li ngeen di ut si fii boo leen ko amul lan la ñu mën a xaar euh, de hmm. votre part nguur gi bu leen nangulul li ngeen ni xeex nii mooy ñu may leen ngeen eggali mois de décembre bi après ngeen trouver consensus pour eggali seen ay activités tout en respectant les gestes barrières non ñun dañuy génne benn protocole sanitaire jébbal ko euh, nguur gi boo xam ne ça va respecter les les mesures barrières moins de public xam nga protocole bi il voilà loolu moo tax ñu ubbiloon ñu il y a mois ñu mën a liggéey ñu permettre ñu mën a liggéey donc voilà on est responsable il faut qu'on nous appelle à la table de négociation ñun bëgguñu clash mais aussi il faut pas nous pousser à bout mënoo jël benn euh, communauté nga stigmatiser ko donc voilà pourquoi tey gars yi ñëpp ñëw taxaw. est-ce que tey Didier Awa Dieye ki nga xamante ni moo yor culture mooy le ministre de la culture tey jot ngeen toog waxtaan ak non ministre de la culture ñu ngi waxtaan ministre de l' intérieur ñu ngi waxtaan mais léegi euh, ok voilà ministre de la santé ñu ngi waxtaan ak ñoom mais à un moment il a une rupture de dialogue mhm. loolu moo tax nga gis tey ñu ñëw taxaw il faut pas que ñoom ñu rompre dialogue bi sinon ñun tamit on peut rompre le dialogue mais aujourd'hui ñun on est assez responsable mm-hmm. on va aller à une discussion sereine ku ci nekk ci mi ngi ñaxtu ku ci nekk ci mi ngi wax li nga xamante ne jamono gi la yëg nous voulons travailler mu doon loo xam ne nous voulons travailler laissez-nous travailler nous voulons Laissez-nous travailler. Nous voulons travailler. Laissez-nous travailler. Nous voulons travailler. Laissez-nous travailler. Nous voulons travailler. Laissez-nous travailler. Nous voulons travailler. Laissez-nous travailler. Nous voulons travailler. Laissez-nous travailler. Nous voulons travailler. Laissez-nous travailler. Nous voulons travailler. Laissez-nous travailler. Nous voulons travailler, laissez-nous travailler. Nous voulons travailler, laissez-nous travailler. Nous voulons travailler, laissez-nous travailler. moo tax ma daal di retourné gis nga ko noonu moom Malle Mbaye kenn dootu ko présenté maa ngi lay ziar sama xarit. maa ngi lay dolli ziar jigéen sama yaa ngi am jàmm maa ngi sant bu baax. ayca tey sa teewaay. sama teewaay kay moom gis nga ko mooy comme ni mu demee nii rek. Mhm. waaw ñun li ñu am mooy musique. voilà di nuyu ñëpp. di ñaanal jàmm di ñaan Sénégal jàmm fi dafa fekk ne ku nekk la koy taral moom la am nit ku nekk li muy suturloo moom la am ku nekk la koy jariñ moom la am kon nag bu fekkee ni yàlla day def ngay liggéey li ngay liggéey ñu bëgg la ko xañ day metti te loolu mooy li xamante ni moom lan ñu def léegi nag ñun dañu ñëw pour wax ne nañ ñu bàyyi ñu liggéey parce que ñun gis naa ni defuñu kenn lenn loo xam ne ni war waruñu ko def ñu ngi teg suñu liggéey ci yoon ñu ngi jàmm suñu yàlla suñu borom mhm. li ñu am kës néew ñu ngi koy bokk ak doomu aadama yi te lenn duñ ko may lu dul liggéey mhm. kon nag li nga xamante ne moo am solo mhm. mooy artistes yi ah bu fekkee day jariñ réewam dara dañ ko war a xam te dafa mel ni ñun xamuñu li ñuy jariñ askan wi moo waral tey ñu ñëw toog pour ñu xool ñu xam wax li ngay wax ñaxtu ñu bàyyi ñu suñ liggéey bi nga xamante moom lañ am te moo ñuy taral mhm. ñu liggéey suñu liggéey. yow mhm. na programme bi ñu demee mooy di wax lu baax nit ñu war koo ngénte wala ñu war koo takk mhm. nga toog ak ay maamam gëstu ay cosaanam gëstu fi mu bokk. wax ay maamam bis jot nga wax lu baax ñëpp kontaan loolu buñ ko xañee artiste bi xañ nañ ko askan wi parce que lu baax li nit ñiy dégg ñu ngi koy dégg ci artistes yi di ko di ko xam ci ñoom di ko gis ci ñoom yaa ngi dégg ngénte takk xawaare loolu yàgg na ci àdduna ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko daan woy kon ñun bu ñu nee ay ndaw am suñu liggéey ñu war a toog wax wax mbaaxu kii wala ñu wax euh, cosaanu kii loolu buñ ñu ko xañee ñu àtte si xañ nañ ko askan wi te askan wi bëgg na lu dul ñu leen di wax lu baax te lu baax moo gën lu bon waaw ah, léegi nag dafa mel ni ñun nag danoo nekkul ci lu baax xanaa moo tax mu war a deme nii loolu mooy bi mm-hmm. loolu la mm-hmm. noonu la demee. Aïcha Bass Endo borom woy Endo yi noo noo daan woyee. non tey moom tey tey non mer mënu noo woy. mais est-ce que doo ko kaas tamit. non mënu ma koo kaas en Endo fi mu toll sama fi ta dem. weer baa ngi ñëw. weer bi dina location baa ngi ñëw. fi mu toll dimbal rek ngir yàlla. ndax restaurant ñu doon tëgg sax di def ay acoustique ay afterwork lépp lañ tëj. dëgg nag. jàngoro ji moom kenn mënta def moom nen ndax suñu borom moo fi indi. waaye moom moom. du dundandoog moom jël suñuy mesures barrières yoo xam ne kat dina dinañ xool nuñ koy defee ba macha allah ku ci nekk mën a mucc ndax boo demee ci marché ni nit ñaa nga fa boo demee ci école yi nit ñaa nga fa kon nag nañ ñu dimbale yeex nañu tàq yorutuñu dara mhm. yàlla bu nu génn yow xale bi bàyyi ma ba ma yokk naqar sama xol bee jeex midi piyaari xëy midi santake waaw jeex na dama sonn Paa Moussa en tant que feccikat jamono gi yan condition yi ngeen di dund. waaw dégg ma jamono gi yan condition ngeen di dund en tant que yéen ñi nga xamante ne yéenay fecc. comme comme nu ko ñëpp waxee rek neuf mois ngi nii kenn yënguwul dara yënguwul. Mhm. xeex nag boo koy def doo ko xeexal sa bopp. tey peut-être am naa koo xam ne wax dëgg yàlla benn Youssou Ndour boo xam ne chaque mois dina ma am lii wala lee mais sama morom amu ko tey booy xeex nag da ngay xeexal pour ñooñu xeexal pour bopp dégg xeexalu xeexalu ma sama bopp wàll bi ñu laal boo xam ne ñun moom la ñuy def liggéey wax naa ko léegi dama ne waxu man nañ ñu may buñ ñu doon jox chaque mois dara sax nga koy liggéey ma loolu nga xam loolu nga tàmm donc nañ ñu bàyyi ñu liggéey ba pare nee naa la ñun atu la ñu duñu handicap ci ci ci feebar bi duñ jël feebar bi di ko defee non xam nañ am nañ feebar feebar am na fi covid bee ngi fi li ñuy wax yëpp xam nañ ko mais nañu utiliser en tant que tel utiliser ñu ñu waxtaan ak askan bi. ngeen di sensibiliser sensibiliser di liggéeyaale. dofuñu fuy def euh, trente trente personnes duñ fa yóbbu trente personnes. Mhm. fuy def trente personnes minimum duñ fa yóbbu quinze personnes. xool ñu ko arrangé ñu ngi liggéey. mais ñu ngi wax mais lu tax ba duñ ko mooy mooy mooy mooy man loolu laa mënul comprendre mhm. ay nit la ñu. de déggoo ma ne ñun ñëpp nekk ñu fi rek ay dof yoo xam ne wala ay ñu muusul non tey noo xamee ne ñii ay nit ñu wala ay dof lañ. parce que dégg nga musicien bu ñu ne <laughs> bi dafa dafa corona parce que ku ne xam na corona lu koy indi donc muus nañu am nañu xel ba pare am nañu xalaat ba pare dañ bëgg a def dara seen suñu réew tey jii nii suñu ñi ñenn seen baat lañu am ñeneen ñi seen i peinture rek lépp mais loolu mën nañ ko utiliser pour pour xeex feebar bi. Mhm. malgré l'interdiction on a vu qu'il y a une présence massive des artistes et okay. par rapport à votre cause. oui c'était normal qu'on vienne parce que comme li ñu faral di wax rek si on nous disait si on nous interdisait de venir euh, et qu'on nous quand, quand on a mal quelque part et qu'on crie qu'on dise non arrête de crier et qu'on arrête de crier réellement c'est parce que vraiment on a pas mal je pense qu'il était important pour les artistes de venir d'exprimer leur colère de se faire entendre et je pense que c'est important tamit pour que nguur gi xam ne ah, am na lu ñu naqar yi am na lu ñu metti et mu def ay mesures yoo xamante ne ça va être appliqué dans le plus court délai mm-hmm. euh, lors du premier confinement il y avait la plupart des euh, comment dire euh, des, des, des, secteurs étaient impactés donc les, les, transports en commun les restaurants les marchés tout était fermé mais pourquoi cette fois-ci il n'y a que le secteur des arts qui est, qui, est, qui, est, qui est durement touché. je pense qu'il serait important aussi que, que nos gouvernants aussi, voilà, essaient de, faire de de ne pas faire deux poids deux mesures quoi. si wolof ñu tënk est-ce que tey jii ki nga xamante ni moo jiite li nga xamante ni moo jëm ci wàllu culture du ministre bi est-ce que tey jotul ngeen toog échange ak moom ay idées am solo yoo xamante ne di ngeen wéyale seen activité en respectant les mesures barrières. xam nga ministre bi moom il est obligé ñun la faral. Mhm. loolu du dañ je suis certain que ni instant bi nii ñu ngi waxtaan seen biir pour xool nan lañuy fajee saafara problème bi waaye ñun ñi nga xamante ne ñun la dal directement ñun bu ñu mel affaire bi fa kiiwuñu daal maanaam euh, safuñu et je pense que am na ñoo xam ne ñëwul ñëwuñu fi am na ñu bëri ñoo xamante ne ñu ngi liggéey ci métier wu art c'est pas des gens yuy nekk ci bërëb yoo xamante ne artistes yi dañ fay ñoo xamante ne bu ñu paree soirée bi lañ leen di fay bu ñu defulee soirée nañ lañ leen di fayee bu ñu euh, ay organisation nañ leen di fay am na ñoo xamante ne doo leen doo leen sax doo doo doo bàyyi xel ci ñoom ñi nga xam ñoom ñooy serveurs yi ñooy serveuses ñoom ñooy liggéey ci ay club c'est des personnes qui sont fortement impactées waxuma sax ñi nga xamante ne ay instrumentistes lañ et que seen instrument mooy seen euh, outil de travail comme ni mu amee chauffeur car rapide bi car bi nekk euh, outil de travail marché ki nekk si marché bi même chose ki nekk si boutique bi même chose noonu la tamit amee ay nit ñoo xamante ne deux de deux mesures warul am ci ci traitement wu euh, kii Covid bi kaawu Covid bi. fi mu nekk nii ñi ngi waxtaan. et comme je l'ai lii ëpp solo mooy tey jii nii il fallait ñu def génn wane sunu euh, sunu li ñu li ñu naqari bu ñu demee ba amuñu li nga xam ne moom lañ bëgg daañu toogaat waxtaanaat xolaat ban plan ak yan yan lan yan pexe la ñu mën a nas incha allah pour pour ñu dégg ñu. maa ngi delloo ziar bu wér. waaw sama teewaay lu war la. ndax vraiment pagaay ku ko xam xam ko ci aar bi. Mhm. que tey yàlla dogal képp kuy artiste rek woo nañu la fii donc artistes yi yëpp ñoo war a teew fii tey c'est parce que ñun lii ñuy dox ñaxtu nii du ñun lañ koy doxal suñu bopp ñun kase ndax intérêt artistes yi yëpp la vraiment di wax ne nag euh, metti na ñu ngi ñaan nguur gi que ñu jéem ñu xoolal yoon bu ñu jaar ñu liggéey ndax boo seetloo ça fait dix mois ñi ngi toog gars yi xamuñu lan la ñuy dundee mu metti loolu loolu te feebar bi mu soog a ñëw ñun suñu suñu devoir def nañ ko mooy dugg nañ ci studio yi def ay son sensibiliser doomu aadama yëpp xamal na leen ne feebar bi ñëw na donc nii lañ koy moytoo ak nii ak nii mais nag bi ñu demee ba toog lu toll ci dix mois metti na liggéeyoo ñun aar rek la ñu xam bu ñu deful aar mënuñu liggéey leneen kon tey il est temps nag ñu utal ñu benn yoon même bu fekkee ne sax affaire bi mënul nekk na mu daan nekkee que ñuy jouer bu waroon doon cent personnes ñu def ko cinquante personnes. Mhm. est-ce ko respecté. pourquoi pas ndax tey jii nii. parce que ñëpp ko respecté non pas ndax ñun instant bi nii vraiment bu ñu waxantee dëgg rek loolu bu ñu ko amee sax mu tane mu gën. Mhm. ñu wàññi ñu yenn affaires yi ñu teg ndax dafa metti vraiment. dañu am njaboot dañu am ñoo xam ne ginnaaw yàlla dañu yaakaar ci ñun aussi que tey jii nii yàlla dafa jaarale seen wërsëg ci ñun ci ñun lay jaar après ñëw ci ñoom comprendre nga kon bu ñu fàttee yenn affaires yi rek dafay compliqué du nekkati ñun rek day nekk ñeneen ak ñeneen donc li ñuy ñaan rek nguur gi ñoom ñooy suñu kilifa te nag vraiment artistes yi lépp lu xew da ngay gis ne ñoom ca kanam la ñuy taxaw ak lu mënti doon kon il est temps nag que ñu ñu libéré ñu ñu mën a dellu suñuy activité merci beaucoup waaw maa ngi lay ziar waaw wax dëgg yàlla maa ngi ci jàmm. ayca allah nga génnoon. bu def feuille flamme tey ñu mm-hmm. Mm-hmm. ngay yëg. waaw li may yëg mooy génn bi ma génnoon. laa yëg ni moo jur lii. parce que dafay dafay wane ni rek artistes yëpp. Mm-hmm. dañoo war a nekk benn bokk ndey ak baay. parce que li artiste li bongo bi nekk ca Kaolack. wala nekk ca Louga di xeex moom la artiste bi nekk dakaar war a xeex mooy ñu bàyyi ñu ñu liggéey parce que suñu liggéey bi ci la ñu yor sunu kër ci la ñuy dundal sunu njaboot waaw. Aïcha tey jii bu ñu leen bàyyiwee ngeen tëggaat li nga xamante mooy mesure barrière yi que ngeen ko respecté na mu waree. waaw ni ñu bàyyee transport bi ñu respecté mesure barrière bàyyi marché mu respecte mesure barrière te nga gis transport beeg marché bi li muy jël ci nit salle de spectacle du ko jël mën nañu respecté mesure barrière yi liggéey suñ liggéey. waaw mm-hmm. tey jii bu ñu bàyyiwul ngeen tëgg lu dul ñaan moom amul. bu ñu amoon duñ ñëw fii di ñaan mhm. dañuy forcé def mhm. dañuy ñëwaat rek defaat comme nii ba keroog ñu ñuy bàyyi li ñuy njëkk a ñaan nag mooy yàlla na fi yàlla jële feebar bi mhm. donc aujourd'hui suñu xol bi sedd na et que encore une fois ñu ngi remercier préfet de Dakar ak ministre de l'intérieur parce que nag tey ci suba amoon na benn dispositif sécuritaire bu ñu fi tegoon bu e- extraordinaire ñu dañu ñëw fekk na yëpp lëba nañ ko vraiment jaarama te lii rek la ñu ñëpp ko bokk ñëpp xam bu baax dañuy jàng dañu lire xam nañu li constitution bi may on n'est pas des violents c'est la première fois ci histoire du Sénégal que artiste yi jug taxaw ne que ne nan leen delloo seen dignité mhm. est-ce que tey jii a tey jii ñoom ñu bàyyi leen ngeen seen activité loolu la ñu bëgg te loolu tànk que loolu amul suñu duñu teggi suñu tànk ci combat bi tant que amul du ngeen bàyyi ah. déedéet tey jox ngeen benn message bu fort boo xamante ne war ngeen yéen ñëpp da ngeen bëgg ci war a teg boo amee liggéey rek noppal nga ñëpp noppal nga ka nga daan ñaan nopp xaw nga noppal nguur gi ñoom liggéey rek la ñu demandé on veut travailler on veut également que le secteur soit assaini parce qu'il y beaucoup de choses yoo xam ne ne que ne des points de revendication yu bëri nga xam ne ni que ne moom moo néewal doole secteur bi na ci que ne euh, dette fiscale yi artistes yi am entreprise culturelle am ko organisateur de spectacle yi am ko mu allègement de l' assiette fiscale bi nga xam ne ne que fa ne parce que entreprise culturelle yi a am beneen traitement pour que kii parce que euh, taxes yi métti na da ngay fay 15 pour cent de perception municipale fay de TVA bëgg ci boole de droit d'auteur loolu amul benn entreprise ci ci boo xam ne antan na ko. Mhm. loolu dañu bëgg pour mu pour mu dañ. Mhm. également dañu bëgg ñu mettre ñu en œuvre la copie privée copie privée dafa nekk droit bu nga xam ne ne économiquement dafa am doole te mën na soqali euh, artistes ñu bëgg également commission de contrôle permanente bi nga xam ne ne que dafa nekk ci loi collective bi nga xam ne ne que ne ñu ngi fi am na benn bu fi njëkk nekk muy SODAV dañu bëgg loolu ñu mettre ko en œuvre immédiatement pour que le contrôle de de de la SODAV puisse puisse avoir lieu ndax coow li wàññeeku. Mm-hmm. voilà. est ce que tey jii bu ñu bàyyee artistes yi tëggaat dañu respecté li nga xamante ne. waaw waaw man xam nga loolu man xam nga loolu daf may naqari. quand on dit ne ndax bu ñu bàyyee artistes yi kii mais car rapide yéen yéen ñëpp Sénégal ngeen dëkk gis ngeen car rapide yi gis ngeen école yi gis ngeen marché yi gis ngeen luuma yi gis ngeen leneen ak leneen gis nañu ko ay ay ay activités yu ñuy tenir ak dans des lieux yoo xam ne ne que ne c'est l'État qui gère ça on est des responsables on est des responsables ñun wax nañu suñu ay njoñ bés bu ñu ñaanee ba ñu ubbil ñu salle yi képp koo xam ne rek sa respecté wul mesure barrière bu yoonu dalee sa kaw sa affaire la mais qu'il nous fasse confiance qu'il nous fasse confiance il est temps que l'État du Sénégal fasse confiance aux acteurs culturels voilà et nous rende notre dignité on veut travailler on a maa ngi leen fay alors nekk tey jii lan ngay boo ñëwee fii ak ñaxtu bi nga xamante ne tey am na fii. waaw ñaxtu bi il fallait ñu def ko parce que lu tax si constitution bi la bokk mhm. ñoom fii lañ doon toog en 2012 fii la de président de nationale mhm. xeer bu mu yoroon fii la ñu ne kon n'autorise pas on va marcher mhm. mais ma fille corona bu mu ñëwee tëj nañ salle de boîte yi durant neuf mois pourtant corona di gën a yokk mhm. di gën a yokk di gën a yokk ba président bi dem ne vivons avec le virus mhm. c'est parce que impuissance la face à cette maladie mu ne on n'a qu'à vivre avec mhm. léegi nag ñu dem ubbiwaat ñu ne deuxième vague je me suis posé la question est-ce que Sénégal mus nañu wax fi zéro cas ba ngay wax deuxième vague yaakaar naa booy tëj bu dee deuxième vague la dix cas nga tëjoon école yi lu tax Sankaat tëjloo école yi lu tax tëjloo marché yi mhm. lu tax tëj bus yi dugal nga xool. mais est-ce que li ci marché moo nekk ci boîte de mais on a parlé de regroupement mhm. regroupement la ñu wax. Mhm. doo ko lu nekk wala lu ci nekkul regroupement la wax boîte de nuit regroupement la marché du regroupement. Gamou du regroupement. Magal du regroupement. Le regroupement il est religieux sportif musical te boîte trois heures de temps la marché huit heures ba dix huit heures nit ñaa ngi fees del yow da dem marché. yow sama jabar mooy dem mais gis nga lu fa nekk ah gis nga lu nekk mhm. dugal bus yi nga xool li fa nekk est-ce que am na di sensation si biisi kon corona musique moo koy joxe mhm. boo du nii lay nelaw non non non ma ma fille. ça pose problème ça pose bi nga xam ni que gars yi préparé woon nañu benn dispositif bu garaaw garaaw parce que y avait de policiers et ak ak yi mais tey jii à ma grande surprise bi ma ñëwee fii ci place bi fekk ñu si camion ni camion ni policier te pourtant xam nañ benn vraiment ñun dañu waxoon dañuy ñëw def ko. donc loolu respect la parce que signal bu fort la parce que xam na ne ñun ay nit yu responsable la donc loolu aussi maa ngi leen ciy remercier parce que geste bu noble la buy wane seen respect ci ñun mais encore une fois ñu leen demander solennellement rek su ngeen ci mën a jàpp parce que ay père de famille ñu liggéey merci beaucoup. jërëjëf ma dem nag waaw mooy dañu dañuy ñëw fii spécialement pour euh, pour daje pour. Euh, def benn demande par rapport ak euh, suñu autorité yi mhm. pour rek ñu bàyyi liggéey parce que je pense que ñëpp a ngi liggéey mhm. donc maintenant en tant que en tant que euh, père de mhm. nekk ci réew mi di liggéey parfois ñu génn sa doom école am parfois doo mën a joxe sa kër dépense parfois ñu génn la appartement bi nga nekk wala kër bi nga nekk parce que faylu le président a eu à faire un geste très noble à notre égard dina na joxe mais ñun ñëpp bu ñu ko séddoo ku nekk yaa ngi am cent vingt six mille cent vingt six mille nga xamante ni artiste bi buy liggéey di def concert pendant six mois mën ay centaines de millions donc nga war a cent vingt six mille donc compliqué c' très compliqué mais encore une fois ñu ngi respecter euh, li nga xamante ne autorités yi bëgg nañ ko ba pare may saluer un geste très noble wax naa ko dem ku jaaroon fi biig ci guddi di nga gis ni que foo dee ab ragal dëgg doo ñëw parce que dispositif fi nekkoon par rapport waaw ce matin même policier yeeg seen char de ak yëpp fekkuñu fi ni policier ni char ni ndox ndox oto boobu di def ndox mu tàng mi fekkuñu fi dara lépp dafa dem te loolu xam naa dafa nekk ci ndigal donc ñoom am nañu respect ñun te loolu comprendre nañ ko ñu ngi leen ciy remercier bu baax di leen delloo aussi respect boobu et encore une fois di leen demande rek vraiment ñu xool naka la ñu trouver solution parce que solution mun na am pour ñu mën a liggéey salle bi def 500 personnes ñu def fa 200 personnes en respectant les mesures barrières je pense que c' est possible mais bien sûr quand même ça c' est pas une question. <laughs> non si c' est une question parce que en général ñu bari tam dañuy ëppal ci ndab li tamit. mais non non non non je pense que y a des gens on est responsable je pense quand on demande de travailler c' est bien sûr. en respectant aussi les mesures barrières. Ah, voilà merci beaucoup. c'est moi qui. waaw di wax asalaamaaleykum di wax asalaamaaleykum di kontaan ci yéen sama waa. sama waa chaîne ah vraiment di wax na nag Macky Sall nañu may ngir yàlla war a sóoli sama waay la sama xarit la mais tey li waral ma ñëw fii tey moom monde musique moo xew le tey ñun amuñ dara lu lu aar man je suis de Fatick moo ma yar mën naa ne sama grand la sama lépp la mais nag nañu may ñu delluwaat ci sunu musique ngir yàlla war a sóoli parce que ñun musique rek la ñu am. tey tout temps da daan tëgg. mais déjà devant Sacré-Cœur il faut ñu tëgg tous les samedis tous les mercredis euh, L'amour café mais na nañu may ngir yàlla war a parce que ñun ci la ñuy fay sunu lépp ci la ñuy gérer sunu lépp nañu may ñun artistes yi ñu delluwaat fii ñu nekkoon liggéey suñu liggéey ndax corona bi tey ku gis fii tey ñu fi taxaw yëpp dañoo jël seen mesure barrière takk seen i masque ñëw gere parce que ñun duñ ay xale au contraire dañu def suñuy morceau ñun ñëpp sensibiliser nit ñi ñëpp xam ne corona am na kon tey nag buñ ci jàppee moom bi muy toog campagne ñun dañoo toog ci wetam jàppale ko wéyal ko ay morceau kon sans artiste ñoom mënuñoo dem nañ jàppale monde artiste bi ñu delluwaat suñu liggéey. Aïcha Simon ñu ngi lay jaajëfal. jaajëf jaajëf naka ni démb seetaan nañ la ci télévision Futurs Médias tey ñu fekkaat la fi ñu gis saa su yaa ngi war a Pastef di ci am. tey jii rek tey ba mu doon wax tey jàngat bi nga xamante ne am nga ko fi. waaw jàngat bi mooy damay kontaan nañu. Mhm. pour kaas euh, benn injustice toog toogaayu ñaxtu pour benn injustice parce que dañu ne Sénégal yi ñëpp ñëpp ñëpp am nañu droit liggéey sauf le monde culturel et injustice mënul gën a rëy loolu tey dafa am ñoo xam ne tey au delà de woykat yi au delà de fecckat yi dafa am ñoo xam ne dañu investir ci ay bâche ci ay chaise ci ay sono sonorisation pour animation culturelle tey ñooñu ñëpp nga jël dugal ci benn mbuus ne ñooñoo tax corona bi di yokk donc ñooñu rek laay ne duñu liggéey tey sa caméraman bu gëstu woon xool tata di dem xoolal ni mu feese del soirée yi du mel nii car rapide yi soirée du mel nii ñoom ñëpp am nañ droit liggéey sauf artistes yi tey artistes yi je crois am nañu possibilité quand même encadrer seen ay soirée fexe ba du déborde fexe ba nit yi dañuy respecter geste barrière parce que ils ne sont pas nés de la dernière pluie ils ne sont pas stupides am nañu staff am nañu organisation nécessaire pour te tey au delà de loolu sécurité am na benn gain de sécurité léegi xam nga lan la ma wax. Mm-hmm. bàyyi gars yi nañu autorisé waat liggéey gaaw sinon ñun dañuy dem agressé ay ponkal lañu ñoo ngi fii taxaw. ñoom ñëpp lañu jël dugal ci benn mbuus. Mm-hmm. parce que amatul manifestation culturelle. donc loolu tax ma ne benn moment il faut que état bi mm-hmm. xoolaat copie am il faut que état bi autorisé waat les manifestations. maintenant ñu teg ay daan tey artiste ak bi nga xam ne organiser wul manifestation yi nit yi respecté geste barrière bu ñu ñëwee fekk fa caaxaan mu mumbaay du n'importe quoi mais ñooñu ñu daan leen ñu ne dootuñu joué ti ba corona bi jeex là on va accepter mhm. mais doo ñëw rek jël benn décision unilatérale mhm. ne dum ci consulter kenn du ci xool kenn et nga dem sa yoon non. est-ce leen ngeen wéyalaat seen activité normale. ah j'espère ndax lii ku ko gis de ah <laughs> nekkuñu dans la sensation wala le dóor daxee la kii mais dañu nekk ci loo xam ne injustice la. te opinion nationale et internationale baa ngi gis injustice bi yow journaliste bi lu tax nga am droit liggéey instrumentiste bi amul droit liggéey sa caméraman lu tax mu am droit liggéey instrumentiste bi amul droit liggéey ñoo ngi nii fii ci manifestation ñëpp ngi takk masque gars yaa ngi respecté geste barrière te soirée du mel ni tu vois soirée ay toogukaay la mën nga def toogukaay de telle sorte nit yi respecté bunt bi mu am gel ci biir mu am kuy wër di distribuer gel ku solul masque ñu génne la ci biti moo gën a yomb a gérer mais tey boo jëloon sa caméra dem ci marché yi gis ñu takkul masque nit yi di saafanto affaire bi fees del et cetera donc injustice boobu noonu opinion baa ngi koy gis et je crois que baaxul ci suñuy autorité baaxul ci suñu économie waaw balaa ñuy yàgg ci yenn cas extrêmes yi na gars yi xoolaat seen copie et autorisé waat encore manifestation culturelle. merci beaucoup bu wér. na métti na pour ñëpp ñu fi daje. muy euh, képp kuy def hip hop muy képp kuy def mbalax muy képp kuy def danse muy képp kuy promoteur boîte de nuit. muy képp koo xam ne sax promoteur de spectacle nga wala de concert wala de tournée tout le monde affecté. te pourtant yaakaar naa ne mbas ba mu njëkkee ñëw fii ñun ñëpp bokk nañ ci ñi ne ñooy ñëkk a mobilisé wu def ay son euh, mobiliser nit ñi def ay vidéo def ay post un peu partout wax ko ci émission rajo yi wax ko ci émission télé yi donc bu ñu ñëwee toll ba fii mu nar a metti si ñun y a de quoi donc loolu moo waral teewaay bi fii parce que ak nu mu mënti demee lii ñuy jéem a def nii mooy tere père de famille yi toppatoo seen i doom euh, tere leen liggéey tere leen tournée te yaakaar naa ne ce que les artistes font aujourd'hui dafay participer ci li nga xamante ne mooy doxal économie dëkk voilà parce que mbas bi tere bi ñuy tere rassemblement bi am na feneen fu mu gën a dangereux te gars yi waxuñu ko muy ci car rapide muy ci clando yi muy ci même dans les bureaux léeg-léeg da ngay gis ay réunion yoo xamante ne gars yëpp dañuy dajaloo ci bureau bi est-ce que donc euh, li gars yi gënoon ragal fii màggal bi la gàmmu bi la weesu na yàlla def na ci ndox mu sedd guy alhamdulilah Sénégal la ñu nekk réalité yooyu noonu ñëpp a ngi koy teg bët mais pourquoi lan moo nar a xam lépp loo xamante ne métti na France rek il faut mu metti fii ñun man perso man Youssou Ndour yaa man bokk na ci li nga xam ne dama koy n'a pas les mêmes réalités que la France nous n'avons pas les am na nu muy doxee je pense que il faut porter il faut se porter garant mhm. il faut ñu am tamit sañ-sañu ak honnêteté wu ak sincérité wu te jàkkaarloog askan li wax leen li nga xamante ne mooy dëgg mooy yoon mhm. kenn waxul léegi xam nga bu la ne bul def sa liggéey wala bul jéem a tere li nga xamante ne da ko ragal boo amee loo ci ragal nga ne ay matuwaay gars yi seen affaire bi nii xam nga ragal nañ ci lii ak lii ak bu fekkee def ko mënul ñàkk moytu leen lii ak lee wala defee leen ko nii ak nii ak waa mhm. yaakaar naa loolu mooy solution tey dëkk yi nga xam ne ñoo dàq organiser ay festival c'est le c'est les Allemands Anglais mais tey tey indi benn système boo xamante ne gars yi mën nañ ay festival boo xamante ne dans des endroits où il plus de dix mille personnes mais ñoo xamante ne dañuy respecter distanciation yi sax ku ci nekk di nga nekk ci sa box nga mën a assister li ngay def après nga dem sa donc ça fait très plaisir de voir tout le monde ici que muy quel soit les bu quel soit ci domaine artistique bi ngay yëngu muy rappeur di mbalaxman di danseur di promoteur benn combat mooy que gars yi nañu dindi mën a di te ñu mën a dellu ci suñu liggéey solidarité baa ngi fi ñu mën a dellu ci liggéey da ci jàmm ak salaam loolu rek lañ soxla soxla ñu ngi delloo ziar tey sa teewaay fii mu jaaxal ñëpp nu mu fa demee ah man je suis journaliste mhm. je en reportage voir se passe et aussi je suis acteur culturel comme mhm. nga xamante ne jot na fee xew te chaque jour dañu lay faral di dégg li nga xamante ne yaa ngi koy wax di jàppale gars yi tey ban jàngat nga am ci lii. alors dama si am ñaari jàngat. Mhm. bi si jëkk mooy c'est bien pour Sénégal artistes yi ak si ci niveau bi c'est insolite aussi musul am mhm. mais dëgg rek mooy mujj mooy lii laal nit ñi ba ñu daan ñëw fii obélisque di wax mhm. te ñoom daaw ñu leen gis moo leen laal tey léegi nag mieux vaut tard que jamais mhm. benn jàngat bi si nekk mooy ñoom artistes yi war nañ xam ne que heure bu sénégalais yi woote ñoom dañoo war a jóg parce que dañuy way di woote di way di expliquer di wax ay situation di wax ni ñuy dundee mhm. kon bu ñu nee dëkk bi am na fu mu toll ni ñëpp jóg ñoom artistes dañu war a ñëw bokk ñu leen di gis comme nii mhm. lii la solo pour ñoom mhm. parce que heure bi fii ñoom dafa waroon fees del seen fans yëpp jóg seen seen admirateurs yi mais lu tax feesul li tax police bi dem parce que police xam na ni fii dara du fi xew parce que kenn new fi bu fekkoon mbooloo nga fi police day des mais que mbooloo nekk fi ou pas police dafa war la sécurité de tout le monde xalaatoon nga ñëw en masse bon je savais que dinañ ñëw bon yaa a aussi l' de des ténors mm-hmm. absence su ténor bi mu xaw a jaaxal ñenn ñi mais c' était presque prévisible parce que dans le domaine ñoom bi ñu nekk. Mm-hmm. dafa xaw a presque exceptionnel. Mm-hmm. ñu war leen mën di gis ñuy manifester comme nii mais niveau bi Sénégal toll moo dem benn foo xam ne dafa sax dafa li ñuy wax. loo looko li espagnol naan al look loo xam ne teguwul quoi du yëfu nit moo dal Sénégal actuellement ba laal leen nag léegi nag laal bi mu leen laal laal képp kuy acteur culturel comme ñu ne keneen est-ce que nekkul dañ doon naagu lu ñu naan ko naagu daagu non non du yi sénégalais nit yu baax lañu mhm. dafa di rek nit da ngay dund mhm. lu la bett mën la mhm. boo demee ba ñu empêché la sa liggéey mais da ngay jóg nga wax nga wax li la metti wax wax ka nag ak fulla ak fayda ak dignité tey xam lan moo doon yoon nguuru Sénégal dégg artistes yi dañuy manifester wala dañuy nangam parce que dañu téye nguuru Sénégal ne non non non nañ ko defee nii ak nii ak nii mhm. le docteur Thior nee na 300 sénégalais ñooy dee au quotidien fii te kenn waxu ko. dëgg la ñu lijjanti corona boo xam ne amuñu solution bi amuñu pexe bi. Mhm. léegi nag ñenn ñi nee nañ business la. Mhm. ñoom nguur bi je que business la toi. man sama xalaat bu gàtt lii kilifa borom xam-xam di wax ci santé. su ma toogee ku mel ni Moussa coor wax. ku def plus de 50 dans le monde. liggéey ak dox ci xeex sibiru moi je me rappelle en 2009 j'étais je faisais la campagne de com de xeex sibiru on le voyait il était actif te boobu fekk na mu actif bu yàgg kooku su waxee dañ ko war a déglu lu taa bi mu waxee immunité collective dès le départ au mois de mars kenn dégluwu ko mhm. léegi wax na ko la mu waxoon moo am après on nous am na dëkk yu ko def te sottiwul ñu nag dëkk yooyu du ñu benn nañu fonctionner ak sunu réalité am nañu jar am nañu xorompole am na ñu jinjeer am nañu leneen ak leneen ak leneen mhm. mais lu tax borom xam-xam yi jàng du ñu wax loolu ñoom il préfère ànd ak ligne bi état bi nekk état bi lan mooy objectif am mhm. question bi ñu war a laaj nguur Sénégal mooy lan mooy sa objectif sénégalais yi ils se bien ñu ngi góorgóorlu malgré les affres économiques difficultés yi ñu am mais ñu ngi des seen ngor ñu ngi dem ñu ngi ñëw léegi lan mooy urgence bu war a tax nga tëj dëkk bi mhm. foofu la wax bi nekk. Mhm. ñun ñaanuñu xaalis yalwaanuñu li ñu bëgg rek mooy ñu bàyyi gars yi ñu liggéey def seen liggéey ni mu waree parce que loolu rek la ñuy ñaan parce que ñëpp koo fi gis ni père de famille la c'est pas duñu ay sécurité yoo xam ne ni dañuy dem de téye lii non non non on est des pères de famille on est instructuré waaw on one responsable on est responsable képp fii amul kenn ku fi def dara te woo ñun boolewuñu si lenn mais nag on est venu soutenir jàppale suñu mbokk mi artistes musiciens parce que ñoom bu ñu liggéeyee ñun ñu liggéey bu ñu liggéeyee ñun duñu liggéey donc moo tax tey ñu ñoo jàppale leen donc voilà nit ñaanuñu xaalis yelwaanuñu nañ ñu bàyyi ñu dem liggéey yi naka nga gisee frère président Macky Sall muy monsieur le maire Aliou Sall ànd ak yéen ci combat bi nga xam ne gis na secteur yëpp a liggéey moom bi ñu ko invité RFM wax na ni nañ bàyyi artistes yi ñu dellu seen i activité jël mesure barrière yi tey naka gisee moom communiqué mais mais mais il a mais il a raison il a raison pourquoi pas bu ñuy jël les mesures nañ ko jël parce que des on peut dañuy def ay yoo xam ne nii c' euh, nombre de place limitée dañ koy organiser. grand théâtre c' est mille huit cent mais dañ koy gérer sécurité dañ koy gérer ba mu yem mille huit cent si on nous dit que grand théâtre comme un bu mel ne grand théâtre mille huit cent personnes mën na mille francs mais dañuy bàyyi mille personnes avec la distanciation qu'il faut mais on peut pas dire que Aliou Sall c' est bien li mu def parce que il a raison wax na dëgg wax na dëgg parce que xam na impact bi si nekk xam na impact bi si nekk et puis moom côté boobu dëkkee y' a que des artistes y' a que artistes. mais artistes yi ñu ngi jooy nee nañ moom recevoir leen dagg na subvention bi. du dimbale quoi. parce que saa waay mënoo jox nit ku nekk nga ko jox dépense weeram wala dépense atam mënut nekk. ah mais le minimum boobu minimum boobu mënoo ko mënoo ko mënoo ko. mënoo ko c'est maire la d'accord mais mënu ko liñ bëgg mooy liñ bëgg mooy bëgguñu ñaan kenn bëgguñu kenn tàllal ñu ñu may mais nañ bàyyi gars yi ñu liggéey c'est juste lañ bëgg bu gars am na xaalis yóbbu seen kër jox nit ki di ko dépense am ak weeram mënoo mënoo ko minimum bi mënu ta nekk mënu ta nekk c'est quoi le minimum minimum bi mooy lan mënu ta nekk mënut a nekk. merci beaucoup jërëjëf. sonn naa dee naa tay naa. salaamaaleykum. ala lu tax nga gëj a tëgg. waaye du ma gëj a tëgg. man saa yi ma demee bay waaj a commencé ñu tas lii kenn mësu koo gis yi ma demee bay waaj a commencé ñu tas. sonn naa de. mais sabar yi nga daan def fu mu toll. mais fu muy koo gis ñu tëj ñu tëjoo tëj ñu tëjoo tëj ji. dañu dimbali ngir yàlla nag tamit sonn nañ. mais bu nga bàyyi man rek nii dama ko respecté. un mètre un la la jox nii de te boo moytu ma jox la deux mètres parce que yonent bi ndax fi nekk nii xam nga lu ma bëgg nañ ñu dimbali rek may ñu dinañ takk mas dinañ zelu dinañ rax si kàttanu yàlla mais bàyyi leen ñor dal leen ko ñaan.